ca bàkk ba jib na générique ba départ na jàngat làmb tàmbali na mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fu waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew tey safa wasaare làmb ñu ngi lay jaajëfal bu baax Baye Jili mu ngi lay màggal di la baalu àq ci tabaski bii ñu jóge di la baalu àq di ñaan yàlla suñu borom mi am jéggal yàlla nañu suñu borom boole jéggal mbokk yi ñuy jéggaluwaat bu baax ñi nga xamante ne dañuy safoo wasaare làmb di ko seetaan tey bu ñu sañoon saa su rek ñuy gis ci ñun li nga xamante ni moom la ñuy seetaan ba bëgg koo gis ci ñun waaye nag njuumte du wees des fois ñu wax benn wax boo xamante ni day blessé jaamu yàlla yi wala day blessé benn nit ñu ngi la koy jéggalu di la baal bu baax di la wax ni bëggewuñu ko woon noonu bu ñu sañoon seen mbégte rek mooy suñu bànneex mbokk yi samedi dafa nekkoon le 16 juillet 2022 fële ca arène nationale Ouzin production moo ñu fa woo Euh, grand combat bi dox ci diggante Lat Dior bu Géejawaay ak Zëm bu parcel Mbooloo mbokk yi ñu dem wan lépp loo xamante ne xew na fa ci wàllu ambiance dugg si ci làmb ji dellu si waat ci plateau bi ay ca ñu dem. tëcc moo su xonk bi Bébé Far moo ngeen boo ngeen lu ñuul li Tigo Far. biñ na daan na lay lay la la Tigo daan na jël mooy. awaalo moo ñu woon ginnaaw boog moo nekkee à doomu jàmbur moo féetee à kalba déedéet déedéet zongale na ko da ngay daanu dangay ngay daanu da ngay daanu da saa waalo daanu na ba du yoon doomu jàmbur daanu saa waalo. Mbacke Daouda Sandis Daouda ngay déplacé wu Mbacke Daouda takk na takk na ko daan Mbacke daan na Daouda. Mbacke daan na Daouda Mbacke Faye daan na Daouda Sandis oh laa ngi noonu. mbokk yi arbitre bi sifflé na combat bi dox ci diggante Zeum ak Lat Dior arbitre bi daa sifflé ñu jàppante. Zeum ak Lat Dior Lat Dior door na dooraat dooraat na moom Lat Dior waaw waaw Zeum te koy ah Zeum Zeum daan na boppam daa forcé Lat Dior daa pompé pompé waat mu metti zëm dakla sa ma tëñëwul yi gis ngeen combat spécial bi doxoon ci diggante Mbacke fay ak Daouda Sandwich combat bi fii la taxawee ci wasaare làmb Ouzin moo leen invité plateau ñoom ñaari mbër yi ñu toog xas-xas loo ay promoteur bëgg ko yàlla suñu borom dogal Ouzin production décroché combat boobu ñu bëre ñoom ñaar ci biir wuree ci bëre ñu bëre ba yàlla def kii di Mbacke fay am ndam Mbacke fay ñu ngi lay féliciter Mbacke Faye yaa ngi commencé yeewu ci làmb yaa ngi commencé xam ni sa position ci làmb fi mbëri ndaanaa ni toll ci làmb war nga faa mën a toll te dëgg la Mbacke am nga taille bi am nga corpulence bi am nga xeex bi am nga bëri bi li des nag mooy saa yooyu bëri ak say adversaire nga leen di sedd cër te maa ngi gis ni say adversaire yaa ngi leen di sedd cër lancé boobu nga nekk fii teggiwoo ko képp koo xamante ne sa nattangoo la ci làmb wala sa adversaire ci làmb ngay bëre moom dina am problème bu rëy ndax yaa ngi teg bëre bi ci yoon yaa ngi bëre bëre bi di xeex xeex bi di daan daan bi te ñu ngi lay féliciter bu baax di félicité waa parcelle gépp ci ndam loolu nga xamante ne am nga ko ñu ñëw ci Daouda Sandwich Daouda da ngay bëreek ay xale mais làmb fi nga ko teg du foofu saa su ne da jàpp ni làmb affaire de daf affaire de agression la wala affaire de bandi bandi lu déedéet làmb la ngay wane ci biti ak la ngay wane ci biir géew bi du doon benn li nga wax ci signature bi noonu nga ñëw pour bëree da nga ñëwoon pour duma Mbàkke Fay du noonu Daouda te saa su ne dañuy gis ni Daouda Sandwich combat am bu jot bu bëree état bi muy indi beneen combat day indi état bu gën a wàcc boobu lan la Daouda dadul entraîner Daouda dafa mënul màgg Daouda dafa am fu mu tegut làmb walla lan ndax gis nañ ci yow lépp mbër Daouda Sandwich am na xorom mën na neexal mën na tuus mën na bëre mën na xeex mais doole bi dafay des trop trop trop trop xoolaatal sa bopp bu baax ci làmb defet bi nag bokk na ci defet bi lay def mbër ndax keroog bi nga ñëwee arène nationale sa diggante ak Osodo da ngaa wane sa bopp ci wàllu bëri xeex bëre daan ko malgré yarax gépp dañoo ngemboon eau chaude indi ko. mbokk yi ñuy félicité bu baax la joor ci ndam lu rëy li mu am ci digganteem ak sëm ñu ngi koy félicité bu baax euh, vraiment la joor def na li mu war a def ci làmp ci bu ngeen xoolee taay bi xool dayo bi xool ni ko géejawaay ëmbee indi ko war naa mën a doon champion ndax léppi champion mu ngi ci moom na gën a yokkaat contact yi. entraîné waat bu baax a baax a baax ndax rajoor réaction yi dafa xaw a yéex waaye nag loolu dina baax ci yow parce que di nga gën a xam fi ngay teg sa tànk ñu lay félicité bu baax bëre nga tenir nga combat bi ka nga doon bëreen moo la jiitu ci làmb moo la expérience làmb sa mag la ci wàllu làmb waaye wane nga sa bopp ba bëreeg moom daan ko jël bu amul benn wérante ñu lay félicité bu baax di encourager zëm zëm sa position ci làmb du fi ndaanaan nga ci làmb def nga lu ne ci làmb bëri nga ak façon ndaanaan bu ne ndam bu ne indi nga ko parcelle mbër bi gën a ës mën a bëree ñeme ci géew bu ñu koy xool dañ la koy jox waaye nag des fois da ngay def erreur yu mag ci sa biir komba làmb ñaar a koy def da nga am loo moom am lu sa adversaire moom làmb kenn du ñëw ngay bëri mbër moo xamante ni dafa am yenn poids yi mu ëpp la poids nga bugg ko forcer ci une minute wala deux minutes nga bugg ko daan boo tenté ay action tenté te action tenté te action da dem ba mu gi da ngay faible adversaire bi nu mu la mën a def da lay daan te loolu bokk na ci li yàq sa combat mooy action yi nga doon tenté bugg ko forcer pour combat bi jeex ndax boo xoolee ci coup yi yi nga jël uppercut yi nga jël li la joor bëggoon loolu la def dala dóor ay uppercut ci ci ci faar rien que pour nga ré nga nga réagir moo bi nga réagiree def nga tenté nga action boo xamante ne ñorul mu accompagner la daan na jël bu amul benn wenente làmb la boo jumu doo daanu mais gën a xoolaat sa taxawaay ci làmb te xam ni defet yi nga am ñaari defet yi nga teg la yépp wàññiwul dara ci sa carrière làmb mun ngaa bokkaat ci làmb xale nga am nga gëm-gëm bi kiri parcelle mbooloo am nañ ci yow yaakaar ñu lay encouragé bu baax a baax a baax mbokk yi noonu la ñuy def rek baresti ko fii stade Jom Iba mbokk yi petit production moo ñu fa woon grand combat bi doxoon ci diggante Mbaye Tine numéro 2 ak xale bii di boo yëmbal ne leen dem ci stade Jom Iba Mar wala leen ci combat yi wala leen lépp loo xamante ne xew na fa ci wàllu ambiance dellu si waat ci plateau bi ay ca ñu dem. bi sifflé na. Ndiouye def ndànk rek dirigé combat bi ndànk ndànk. plateau ma ngay xeex Yanda ya ka plateau daan na plateau daan na ko. Gandiaye. Ndeysaan moo ngemb bi wala rabal bi Birngel moo ngemb moo ngemb am lu bleu li Ndeysaan Birngel dooraat na Birngel doon na dóor na ko mu ginnaaw Siteu bu anti moom nga jàkkaar lool Douglas a ngi dox ci koom Siteu bu anti bëre Douglas ak Siteu Douglas ak Siteu Siteu daan na ko jël bu rëy. Oh! mbokk yi gis ngeen combat bi dox ci diggante plateau ak xale bii di Yanda 2 vraiment mun naa ni làmb jooju ni ñu ko yaakaare woon sax amul malgré nag sit am na muy plateau muy Yanda ñaari combat xale la combat yoo xamante ne séntu woon nañ ci xeex séntu woon nañ ci bëre mais plateau daan na. li tax plateau daan mooy dafa xeex dafa woo yandaa ci xeex yandaa daw bëgg ko jàpp plateau daw def rotation parce que xam na ni fi ñu ko naroon yegg dafa sori bi muy génn saaku yi la yandaa rëpp quatre appuis te sut la ci làmb la bokk ñuy félicité bu baax plateau di encouragé yandaa di ko wax ni xale nga mbër nga boo xamante ni internet bi walla presse bi ñëpp dañ laa bëgg ngir sa yaru sa disponibilité sa bëgg ñëpp góorgóorlu xam ne mën ngaa doon champion ci làmb lii du dara defaruwaatal ànd ak say mbokk ànd ak waa bawal gépp ñëw xale nga amagoo tollagoo fooy amee bay ñàkk ñuy félicité bu baax plateau ndeke defet baax na ci mbër sa diggante ak euh, Laurent Ndiago fële ci arène nationale defet bi nga ci amoon sa deuxième combat dangaa doon mu daan troisième bi yaa ngi wane waat sa bopp ci làmb noonu la mbokk yi ñu ñëw ci combat diggante Bringuel ak xale bi nga xamante ne vraiment mooy gànjaay gànjaay dafa bëreeg Bringuel ci biir wuure bi Bringuel dóor ko koo bu dal crochet menton loo ko dóor mu daanu Bringuel bi mu simmee ko gànjaay simmee ko combat boobu rek doy na grand combat Bringuel bàyyi leen xel ci moom wax na ko deux combats la def deux victoires démb moo nekkoon troisième combat mu am ci ndam muy trois combats trois victoires nee na li traditionnel bi mu toppoon blessure yooyu moo ko sonaloon sax ba tax li mu waroon def ci wàllu bëre doo defu ko ñu koy féliciter bu baax di encourager gànjaay di ko wax làmb noonu la bi ngay ñëw da ñëwoon pour bëre mais jël coup boo xamante ni vraiment ci làmb la bokk ñu lay encourager bu baax di féliciter Birngal mbokk yi di ñëw ci grand combat bi dox ci diggante Mbaye Tine numéro 2 xale bi di boo yëmbal ay ci ñu dem. ak Mbaye Tine Waalo Mbaye Tine moo la féete ginnaaw boo yëmbal nga jàkkaar lool mbokk yi il est vingt heures ngi noonu. ndaysaan ñaari xale yaa ngi noonu di lewaatoo tuna boo yëmbal maytin wër ndomba wër ndomba maytin wër na ko ndomba boo yëmbal wër ndomba trois appi trois appi wëraat na dara daan na ko wala déet daan na boo yëmbal mbaytin daan na mbaytin am gis ngeen combat bi doxoon ci diggante mbaytin ak boo yëmbal bëri nañ ñaari xale la combat espoir la ki jóge yëmbal ki jóge géejawaay ku ci nekk am noo ñëwee ci làmb ja dañuy njëkkee ci boo yëmbal boo yëmbal vraiment indi nga mbooloo def nga mobilisation bu mucc ayib mais da juum ci combat bi ci ni nga bëree xaw ma conseil la xaw ma noo bëree da ngaa juum ndax ni nga bëree ak mbaytin du noonu nga waroon bëree Mbaye booy bëreeg moom dafa nekk xale boo xamante ni macha allah am na jàpp te bu jàppee du bàyyi te boo tàntee action mu forcé ci biir action boobu nga def mu daan la ndax mbër mu nekk ak ni ngay bëree te Mbaye noonu lay bëree yaram bi day yëngu ci bëre ndax li traditionnel bi dama ko fay fekk lu bare bare mu wane boppam ci wàllu bëre waaye bi ngay bëreeg moom mënoon ngaa dem moom ba ci saaku bi nga bëreeg moom lànk xeex ak moom bu la bëggee jàpp nga bañ xañ ko jàpp bi ba ca kanam ndax làmb ji du làmb joo xamante ni waroon nga koo mën a ñàkk dafa am noo waroon bëree mais nag bëre nga ci biir bëre bi ngeen wuree jàppante nga bëgg a tenter action mu suivre la daw bëtt la nga nga nga nga génn mu wër la ndomba accompagner la daan la ñu ngi lay encourager bu baax boo yëmbal mbokk yi di félicité mbaytin di ko wax ni mbaytin Tine ndeke defet baax na ci mbër sa diggante ak dab daan da daanu waaye bi nga ñëwee erreur bi nga defoon sa diggante ak dab daan defaatoo ko ci sa diggante ak Mbaye ndax da ngaa jàppoon dab daan xeeb ko di bëreeg moom ba mu wër la ndomb ci biir wure boobu ci loolu la la daanee waaye sa diggante ak boo yëmbal démb gis nañ beneen mbaytin bu màgg bu mature ci wàllu làmp nga bëre bëre bi teg ko ci yoon. bëree conseil ba daan kii di boo yëmbal ñu lay félicité bu baax Mbaye di wax ni war ngaa mën a yegg fi say morom yegg ci làmb na macha allah yor nga jëmmi mbër bi yor nga bëre bi xanaa kay dañ lay gën a yokkaat nga gën a yokk contact yi gën a yokk bëre bi ndax macha allah mbokk yi noonu la ñuy def rek ba ko fi nga xamante ni mooy arène nationale grand combat bi dafa doxoon ci diggante. xale bii di Pokola Balde ak xale bii di Dame Sungeer numéro 2 mbokk yi bu ko defee ñu wan leen lépp lu fa xew ci wàllu ambiance ci wàllu bëre dellusiwaat ci plateau bi ay ci ñu dem. bi sifflé na maar moo ñu féete à gauche Garbassé moo ñu féete ñaar lamb nag bu tollee fii gën dégg ñi nga baax ay takk na war na ko ndomba penalty maar daan na Garbassé maar daan na Garbassé mardana garbase Dial Diop Abdou Fit abi sifle na Dial Diop Go Fit Go Fit ak Dial Diop Go Fit moom la ñu yaakaar lool Dial Diop moo ñu woon ginnaaw Dial Diop dafa may xeex bëre bee ko gënal waaye Go Fit Dial Diop ak Go Fit Go Fite Go samedi ah. Dial Diop na ko Go Fite na ko war na ko ndomba da koy toog na Go Fite daan na Dial Diop Go waaw waaw da ko war ndomba bitti ci diggante Pokola ak Dame Souguer numéro 2 ñoo ngi gis Jules ci biir Pokola ci biir géew bi Dame Souguer Dame Souguer a noonu Dame ci préparation yi ba tey Pokola journée photo production Dame Su Gueye na il est 19h52 Pokola cokkaas na léegi dam fayu Dame Su Pokola moo xaw ëpp tuuti laf Dame Su daw na jël dóor eh ñoo xeex ba doomu daan du ci am xeex dóor na ko kaw na eh Dame dóor na ko mu daanu Eh, Pokola doon na Dame mu daanu Pokola doon na Dame mu daanu Dame Sigué dafa xeex Pokola du ko daanu Pokola du laa mbokk yi gis ngeen combat bi jot a xew ci diggante Dame Sigué ak Pokola Baldé mu nekk làmb nekk combat xale ba tey ñu dekkil diggante Parcelles ak Pikine waaye dañoo bëre ci biir bëre bi gis nga dañu jàppante rek xale bi di Pokola def mëninam ndax mbër du bàyyi mëninam Pokola dafa jàpp Dame dóor ko ba mu tëddal boppam seen normal ñu ngi félicité bu baax Pokola di ko wax ni làmb am nañ ci yow yaakaar am nañ ci yow cër fi sa papa Ama teg tànkam war nga faa mën a teg sa tànk ci làmp champion nga ndaanaan nga gënala góor la war ngaa mën a am lu ne ci làmb Pokola Balde mbokk yi dañuy ñëw ci Dame Sungeer Dame yaa ngi ci moment yoo xamante ne ay moment yu difficile la ci làmb lu bare bari ci làmb mën nañ la ko pardone ndax mbër muy bëree tegle quatre défaites ba jëm ci cinquième défaite vraiment metti na metti na lan moo la manqué Dame Sungeer lan mooy sa problème façon bëre bi ngay bëree parce que mënuma nangu Pokola Balde tegal la tànk ndi joor nga teg tànk ndi joor te ñëpp xam nañ ne Pokola Balde fooram mooy loxo main droite bi bu jàppee day dóor di dóor di dóor di dóor nga seetaan ko mbaam xam ni muy bëree nga dugg ci axe Pokola Balde xamoon nga ni mun na laa dóor nga daan parce que combat bi du noonu nga ko waroon bëree nettali nag ni nga waroon bëree yaakaar naa yàq lu bare bare la ci wàllu làmb lu bare bare ndax bëre nga daanu nga ba pare mais nag daam toogaatal nga jël sa temps parce que am na moment yoo xamante ne bu fa mbër nekkee day toog waxtaan ak staff bi waxtaan ak ay mbokkam waxtaan ak ay njëgañaalem xool lan moo ko manqué pour mu jéem ko defar bul ne mukk damay rectifier sama erreur damay jëlaat beneen combat déedéet toogal xale nga toogal xool lan nga manqué dem entraîner ji dem waajaay toog bu la ko jaralee nga toog benn six mois boo xamante ni bëriwoo ngay entraîner di defar sa yaram parce que war ngaa mën a bokk ci làmb defet yi nga am du dara mbër am na ko doon champion ci làmb mbokk yi noonu la ñuy jaajëfalee ñëpp ñoo xamante ni vraiment ñu ngi ci làmb ji mbokk yi kii di Mansour Ba le ministre Amadou Ba dafa ànd ak euh, Alioune Ndoye ñëw seet si ko ziar si ko fële ca Parcelles Assainies fa mu dëkk gis nañ fa mbër yëpp ndax buñ nee Mansour Ba wax jàmbaar te buñ nee jàmbaar Wrestling Academy wax jàmbaar production kon njiitu jàmbaar production moom la ministre Amadou Ba seet si woon mbokk yi mu yëkkati fa ay discours yoo xamante ne lépp ngir jeunesse bi am ci lu ñu jàpp lépp ngir xale yi am seen ëllëg mën a ñoŋ te loolu la ñuy séentu ci moom. nit la boo xamante ni day dund social di jàppale xale yi moom Mansour Ba di taxawu fi nga xamante ni foofu la papaam tegoon tànkam mu teg fa tànkam ñu ngi koy félicité bu baax di ko jaajëfal mbokk yi niñ leen di tàggoo mooy dañ leen wan Mansour Ba ba ñu demee ci këram ana lan la ñu wax ci diggante seet bi nga xamante ni le ministre Amadou Ba ànd naag Alioune Ndoye seet si ko Mansour Ba lii la ñu tegal mbokk yi di leen jaajëfal di leen tàggoo foofu ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew làmb jërë ngeen jëf. Mansour ñu ngi Ba ci am. ah d'abord rek euh, sentiment de fierté bu mag ak contenté bu rëy aussi parce que li yombul kilifa yu toll nii le ministre Amadou Ba. déplacé wu ñëw di la seet si c'est quelque chose d'assez symbolique moo tax euh, dama ci kontaan trop trop trop trop trop macha allah. bi nga ñëwee gis jeunesse Parcelles Assainies ku ci nekk wayu benn Mansour ku baax la Mansour ku yaatu la mais népp mu mel ci bàyyi ji la ko jëlee ban yëg-yëg ci am. waaw loolu moom xam nga àdduna hmm. mooy li may wax rek man dañ ma yar ci partage ak solidarité. ñun saraxuñu kenn kenn yalwaanuñu lépp lu ñu am dañ koy bokk ak nit ñi du ñu bëgg sax di wax maye partager lañuy wax waaw ci loolu lañ ñu yar ci loolu lañ màgg moo taxit lépp lu ñu am lu affaire ay politique wala affaire dara waaye ci àdduna noonu la ñu yaree lépp lu am dañ koy bokk ak suñuy mag bokk ak suñuy moroom bokk kook ñëpp ñu ci xaj. Hmm. si dalay nga génne ci say moyen bopp génne lépp ngir foofu hmm. nit danga koy jàpp ngir nit hmm. Amadou bu ma ko téye Modou Lo la roi des arènes moo tax hmm. ndax Modou Lo sama nit la sama mag la sama xarit la taxawu na ma fu nekk ñu seq lu bari ma gis ñu ko Amadou téye Amadou di ko jàppale di def ci moom lu nekk di nit ku baax Amadou Ba di nit ku discret lu muy def lu bari du bëgg nit ñi xam ko ni mu téye Modou ak Modou nu mu mel ak man moo tax tey ma jàpp Amadou Ba. Hmm. ëllëgu li ma wax sànq rek ñoom lu ñuy wax rek loolu laa wax jeunesse bi comme li may wax dañoo soxla une jeunesse bu éveillée une jeunesse bu consciente une jeunesse bu responsable waaye itam jeunesse bi dafa soxla ñi leen jàppale. teg leen ci yoon wutal leen ay liggéey créer ay conditions yu xale yi mën a poursuivre seeni rêve ñaanal ko man ku ma yëg ma yëg la ku ma déglu yëgu ma la man géej waay laal jëndoo laa def su ma ñëwee tuyaat bi moom moo ko waral moom moo ko waral kon ku bëri ko nekk yàlla na yàlla jàppale ko suur xale nga li nga bëgg yàlla ko xam yàlla na ko yàlla defal waaye ni nga mën a mel ndax fekk ko ci ma ma kooku sport lañ dund sport lañ dund yàlla na yàlla jàppale li nga bëgg yàlla suuf yàlla na yàlla kontaan naa jërëjëf Masou. Thank you. ngeen déggal ñu rek kenn ku nekk ñu nga toog bu ñu waxee damay wax man damaa war a wax si koñ bi laa bokk moo waral tey ñu doon suur ñu jël kàddu kenn ku nekk bu ñu koy sànni kàddu ngeen déggal ñu rek ñu jox Abdoulaye moom ay tàggu sa sën. loolu ko ci ko ci quoi. mu ngi ci def ak laami moom moom Pemba.